te bu ñu tëb rek ànd ak ñi ñu bare woone ñu pour ñu ànd ak ñoom dañu def sélection de critères sélection de critères bi ma bugg ak président bu may ñaan Sénégal yor ko mooy président Cheikh Alassane Sène moom lay ñaan yàlla fal ko li tax may ñaan yàlla fal ko li tax may yàlla fal ko cotiser lul kenn pour ëllëg mu toj tontine di ko séddale dafa yor li muy yor pour dem campagne parce que dégg ci waxam mi tontu ñi nga xam ni dañuy cotiser loo nit ñi wala dañuy laam-laame pour yor réew mhm. mi ne leen président boo ut dëkk dangay yor loo def sa gafa muusal wala nga rënk ñi nga àndal bu ñu nekkee ñu sonn mhm. wala loof nga jox leen lu ñu lekk mhm. mais munoo topp ñi nga àndal naan leen ma cotiser leen ma ma def on est arrivé à un an d'un bilan de la municipalité j'étais candidat Et dans mon programme, j'avais dit que ni, je ferai sept quartiers par an de pavage. waxuma koon pour caaxaan parce que xam naa budget bi bi ngeen ma defalee direct ak docteur Ibrahima euh, docteur euh, Idrissa booja dégg ngeen bu baax li mu wax ci sama programme ma démentir ko ñëp nangu ne amuloon programme kon man amoon naa programme su ma neexoon laaj bilan mais day teel lu ma ko laaj maa ngi bàyyi ba après deux mille vingt quatre ñu doog a laaj bilan boobu. mais lima ma xam Macky Sall jeexal na page bu ñu tourné la yor liggéey na ñu ngi koy jaajëfal mais Sénégal ci boppam ñoom ñoo taxaw ne bëggatuñu Macky Sall en majorité du lu ñuy laam-laame li ñuy wax ci rajo yi la nit ñi di ko jooy ci kër yi nit di ko wax fu nekk même bu doon dafa liggéey lépp lu mel ni panaal ñëpp teg ko bët tey nit ñi ñoo taxaw ne bëggul pourtant kiñ koy bëgg remplacer di ko yuuxu defee ne moom mooy wax bi populisme bu muy def buntu leen ko jox mi maire lañ ko jox mu buñ la joxee kër nag ne la nga tabax ko mënoo koo si def pantre ci juróomi at est-ce que buñ la joxee réew di nga si def palanteer nañu bayaat suñu xel bu baax wax ak jëf dafa bokkul ki may soutenir fonds yu muy diriger ñoom kuñ ko diriger woon kenn du laaj président Sénégal parce que li muy diriger moo ëpp doole budget Sénégal quatre fois ou six fois kon soxlawul ñëw Sénégal pour enrichir dama ragal bu ñëwee mu defal ni Trump bañ a utiliser seen oto bañ a utiliser seen carburant fa la jëm ak yéen bañ a utiliser seen salaire donc ak seen avion parce que am na yooyu matuwaay donc menul ni président buy taxaw ne nañu cantine pour suñuy doom boo fekkee ay nit yu nekk dans l'extrême pauvreté nga ne da leen di génne si coono bi doo leen tegloo li ngay njëkk def mooy xool nan la ñuy def ba naan tuuti compte goutte d'eau ba seen boutique yi tijjeeku nga may leen lu ñu ndekkee mais doo ñëw rek fekk leen foofu doo ñëw fekk leen foofu ne leen kaay leen naan ba màndi wala kaay leen ñu teg bu ma baxalee baraana bi da ngeen naan meew boo ko defee ku naan day dee wala biiram yëngu donc nañu xoolaat bu baax tànk yi ma jël engagé aussi pour ànd ak président Cheikh Alassane Sène tànk yi wér la te dama ko jël au moment qu'il faut parce que dañu tollu ci pré-campagne ñu tollu ci plan de massification plan programme élaboration de stratégie ñii nag ñu ngi liggéey wër nañ àll bi dem nañ dëkk yi bare dama dul wax na ko xam fu ñu jëm mm-hmm. doo yegg mm-hmm. ñu ngi ci liggéey bi te ñun danañ continuer liggéey bi fii dès demain incha allahu rabbi si kàttanu suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullah nga xam na ñoo nekk suñu plateforme yëpp gis ngeen tey nag ñu ñëw fii ci li nga xam ne moo nekk répétition euh, Viviane Chidid Ndour Viviane nag gis ngeen Sénégal ñëpp ko bëggal boppam rawatina Pawlish ak Ouzin Keita ñu fekk leen fii mais laataa ñuy dem ci programme bi nga xam ne ñu ngi koy waajal kat ak jàmm euh,